ahmadou xayr di sant sëñ jibril Diop di sant waa daara Taysiir al Asiir ñoom ñëpp e, ak njabootu daara gépp ak fu mën a nekk ak njabootu daara ñëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen xamal ne lii lii ma def nii ab commencement la rek incha allahu du ma def lu dul gën a góorlu ba nga xamante ni si li ngeen bëggoon ci man danaa ko gën a continuer ba ngeen gën a mën a kontaan ci man ba ngeen gën a gis ne seen doom jii nga xamante ne moom ngeen jàngal yar ko tamit yëg na li ngeen ko defal te xëy na tey di di leen ko fay. léegi nag lan ngay lancé message kilifa diine yi nga xam ne tey fa ñu toog kenn ku nekk mbooleem xalifa yi fi nga toog yaa ngi am mbégte ban message nga leen di yónnee ndax euh, ku dégg Touba Vision xam ne international ñëpp a koy seetaan ñu tëjee ko ak yow. Euh, kilifa diine yi moom dama leen di nuyu ñoom ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen wax ne mbir mi defuma ko man euh, defaluma ko sama bopp. yëmul ci man waaye réew mépp ñoom ñoo ko moom comme que ñoom bu fekkee diine ji ñoom ñoo leen ñoo représenté diine ji te toujours damay wax ne langue arabe bu fi l'islam yegsiwul woon l'islam euh, langue arabe du demee neen kon bu fi yegsee fii dem ba nga xamante ëpp ci réew mi dégg nañ ko dem ba nga xamante ni sii ne ñi ngi koy xam bitim réew ci Sénégal bu dem ba nga xamante ni Sénégal bu ñuy bokk ay concours bokk di ci rawante ay moromu noonu loolu di leen ci remercier di leen ci di leen ñaanal di ñaan yàlla mu sàmm leen te tamit di leen wax ne ñoom ñoo ko moom ñun defuñu ci dara ñun ñëpp waa Sénégal ñëpp kenn ku ci nekk ci ak cinq ans yaa ma yabaloon pour ma dem ci concours bi bu ma ñëwee tamit bu ma def lu dul bu leen ma sant. yéen laay sant yéen ñooñi al